ni que dañ ko bëgg euh, fësal mu doon seenu candidat en tout cas Guédiawaye lañu waxoon ko war a amal programme boobule ci week-end bi samedi ak dimanche mais apparemment dinaa ci euh, ñëw léegi. Mhm. mais tey xam nga ne mënoon nañoo taxaw te waroon nañoo taxaw sax laay wax. Mhm. lu yàgg yàgg jëmale ko ci doomu Sénégal yi nga xam ne géej gi commencé na di leen lekk te kenn waxuñu dara. Mhm. muy ay xale yu baree bari yoo xam ne toog nañ ci réew mi ba gis ne. seen njëriñ nekkatu fi. Mhm. xale yooyu dem di défier géej gi ak ay vaggam ak lépp li mu àndal. di ci dugg ngir yaakaar un monde meilleur ailleurs comme ni ko siit Lamine doon waxee. alors que tekk fii la nekk ci réew mi. xale yooyu ay semaine bii plusieurs fois dégg nañ gaal gu daanoo ca ndar mhm. gu suuxee ca ndar mhm. dégg nañ gaal gu jóge Kafountine euh, jëmoon Espagne nee nañ suux ay bakken yu bëree bëri rot ca mhm. ak feneen ak feneen autorités yi Sénégal yi di ko niyee ñoom parce que Aïssata Tall Sall def na ci benn communiqué le ministre de l'intérieur euh, wax na ci mais quoi qu'il en soit même su fekkee ne euh, ñoom ni ko expliqué noonu la demee li ngay jàpp rek <coughs> immigration clandestine ñu ko daan tudde Barça wala Barsaq wala mbëkk mi wala mbëkk mi commencé ti na. Mhm. lan moo ko waral lan moo tax xale yi jékki-jékki rek fëxandoo. wuti mhm. géej gi. Mhm. je crois la bon question parce que waxoon naa fii ci plateau bii ne xale bi nga xam ne ñeme na di jël gaal. di défier géej gi. xale bu dëkk ca Bawol wala dëkk ca Njàmbur wala dëkk ca fee dë wala Saalum dëkkul sax fu ñuy nappe ñëw fii jël bateau jël gaal dugg ci ñu nekk ay deux cent trois cent voire quatre cent personnes ci genn gaal jëm Espagne guddi bëccëg ñu ne ci ndox mi pendant des jours pour ak Espagne xale boobu su ne day génn manifester ci Ndakaaru kenn mënu koo tee manifester. Mhm. parce que ki ñeme géej gi wax dëgg yàlla ragalul alkaati. ragalul mhm. jéeri ji déedéet. ki ñëwee géej gi ragalul jéeri ji ak lu xew ci jéeri ji mu supporté ko et loolu lu jar def attention la te mënoon nañ cee taxaw lu bari dinaa ci ñëwaat beneen bés mhm. mënoon nañoo taxaw ci di ko sëriñ waxee keroog ci baykat yi mm. jamono ji mooy mooy jamono bi gën a difficile ci béykat yi Sénégal. Mm-hmm. te te te te doo dégg kenn wax seen mbir. man am na ko ma woo envoyé benn audio bari ki dem di ma wax ne ma suñ mënee interpeller le ministre Aly Ngouille Ndiaye nañ leen dimbali interpeller leen ko parce que moom dëkk ba mu dëkk joxe nañ ay ay njiwu ci gox ba xam ne dañuy joxe ci ci benn. Euh, euh, seko seko ñuy joxe ci dëkk yi. Mm-hmm. mais nee na moom dëkk bu dëkk liibaru gerte dugg fa liibar. Mm-hmm. wax na dëgg. li bëri gerte. sëriñ baykat da leen wax la dëgg. waaw ma ne ko wax dëgg yàlla dinaa ci wax li ma mën de mais su ma waxee la yàlla rek Sénégal ak góor gouvernement talul ñu leen jamono ji. jamono ji li ñu tal. mooy li jëm ci ku war a bokk ci élection présidentielle. Mm-hmm. te loolu moo tax Aïcha ñu bëgg a taxaw ci premier point bi ñu nar a waxtaane tey. Mhm. muy investiture Ousmane Sonko et Ousmane Sonko déjà waa ka waa partem tànn nañ ko. Mhm. parce que am na benn procédure boo xam ne ñoom moom lañu ñu teg pour tànn seen candidat démb lañ ko def. Mhm. dañ ko voté nee nañ à cent pour cent ñi voté moom la ñu tànn ne mooy seen candidat. li desoon mooy la cérémonie d' investiture. te loolu dafa am solo chaque parti politique da nga am droit. wala coalition boo tànnee sa candidat nga def sa cérémonie d'investiture soo demee euh, ci américain yi bu ñu koy def ngan dem événement lay doon mm. Mm. soo demee France ci ngan di salle la ñuy defee les cérémonies d'ouverture c'est rare d'ailleurs nga gis ñoom ñu koy génnee ci yenn euh, place publique yi soo ñëwee fii ci Sénégal man mii en 2011 de 2012 je pense non 2011 fin 2011 mm-hmm. man dem naa euh, meeting d' investiture u candidat Macky Sall. Mhm. ñu ngi ko amee woon fii ci esplanade bu yoof ci jàmmalaay ci jàmmalaay esplanade bu jàmmalaay bi nga xam ne filo la bi jaar mhm. léegi. foofu la ko defee woon man dama dama demoon fekkee et d' ailleurs je me bi ma demee fekkee ji ko je crois que c' était un, un samedi le dimanche quand je suis venu à Walf may discuter suñu rédaction nii euh, ma naan leen xaw ma kuy gagné élection de mais Macky Sall mii moom ku gagné di nga ak moom parce que mbooloo bi ma gis ay esplanade bu jàmmalaay dama gëmoon ne kii am nay nit. de la même manière su ñu demee ba dix douze ans après un parti politique tudd Pastef parce que si dégguma benn loi wala benn mesure boo xam ne jël nañ ko. ne dañu dissoudre Pastef. c'est un parti légalement constitué. qui existe au Sénégal comme ni fi PS existé comme ni fi AFP existé comme ni fi APR existé comme ni fi PDS existé parti boobu am na droit. Mm-hmm. Cheikh Tidiane ne day def investiture candidat wam candidat ba dina bokkam du bokk loolu beneen débat la mhm. mais bu leen neexoon tey jii ne dañuy def congrès ne dañuy investir Cheikh Tidiane Gomis mu nekk suñu candidat sa c'est le droit mieux parti boobu ne defewuñ ko ñoom ci voie publique bi maanaam ci mbedd mi dañuy dem ci stade tànn stade Amadou Barry bu Guédiawaye mhm. ne fa lañ koy defee Cheikh Tidiane lii ku koy def man dama jàpp ne jàmm nga bëgg parce que mënoon nañ demander ne nañ leen jox place de l'obélisque mmh. mënoon nañ demander ne leen jox place de l'indépendance wala ñu demande nañ leen jox esplanade bu bu jàmmalaay fa fa Macky Sall defoon investiture am wala ñu demandé euh, terrain xaar yàlla bi dina gêner nit ñi mais là ils disent dañ koy defee ci biir stat stade mooy foom fi nga xam ne fa la mbooloo di dajee en mmh. réalité mmh. fa la ñuy bëree fa la ñuy footballé fa la ñuy lépp stat bu fa nit ñi xasee ba dugg gêner tuñ kenn mais li doy mooy gouverneur u Dakar moo génne communiqué. Mhm. wax ne bépp manifestation boo xam ne rassemblement boo xam ne dafa waroon a am diggante le 15 ak le 16 autorité administrative yi maanaam préfet yeeg sous préfet yi interdire nañ ko ci Ndakaaru te gouverneur Cheikh Tidiane ñu wax ko mu leer ak ah, moom Alassane Sall mii lii mu wax amul fenn fenn fenn foo xam ne fa la ko teg je m'explique. Mhm. daf ne ay risque de trouble sur la voie publique déjà stade de voie publique Cheikh Tidiane yaa gën a xam li may wax. Mhm. stade du voie publique stade du voie publique cest bu ko gouverneur xamul il faut ñu wax ko mu xam muy benn xam na ko sax dafa ne ci leneen donc kuy woote ci stade woote woo ci voie publique mhm. les risques de trouble ci stade man defe naa ne bariwul lu ma koy dégg muy benn ñaareel ba gouverneur mu ne parti bi nga xam ne moom moo koy def seen njiit te ñoom duñ ko tudd jamais mais ma tuddal leen comme Ousmane Sonko. Mhm. seen njiit daf defoon benn appel temps yële ci gannaaw nee nañ def ay rassemblement ba mu defee appel ba après ay individus ñoo ci profité def ay manifestations yu violentes yàq ay alalu jàmbur ñoo xam ne seen seul tort mooy bëgg liggéey investir bëgg liggéey déjà man dama xamul lan moo tax Sénégal Cheikh Tidiane su ay bakkan tuuroo ñun on parle de matériel. Mm-hmm. man vraiment je suis foncièrement contre képp ku yàq magasin wu jàmbur ay oto yu jàmbur ak lu mën doon parce que yow mii man mii man nga gaari sa oto fi manifestation am ñu ko si yoon néew mm-hmm. mais dama ne fu ay bakkan tuuru. Mm-hmm. nit wuru fa nekk di wax ay matériel bu yàqu te loolu da koy dégg souvent suñu autorité yi ñoom bakkani tour amul solo li am tuur mooy li li am solo mooy yàqu-yàqu yàqu-yàqu te bakkan fu mu tu waddee rek jëratul wax matériel mhm. muy benn mais gouverneur su waxee ne Ousmane Sonko dafa defoon benn appel ne nañu manifester yooyu yëpp juddoo ci donc su defaatee appel mais attends deful appel pour manifester te Ousmane Sonko ba léegi déggu mu def appel parti ñoo ne def seen congrès mhm. fan lañ koy donc lu fi indi manifester est-ce que gënul woon yomb ci gouverneuru Dakar mu fexe ba kenn du manifeste ci beddu ndakaar yi ku bëgg a dem ci stade ñu ako ñu ñu euh, euh, accompagner nga dem ci stade def sa congrès. Mhm. boo paree euh, alkaati yi ñi nga fa taxaw ku bëgg a def leneen ñu digale ko ak yow. mu ne moom gouverneur Dakar ba léegi ne ci réseaux sociaux yi sax am na ñu ciy bind daan nañu préparer pour def nangam ci marché yeeg xaw ma lan ak lan affaire yi Cheikh su fekkoon ne lu ñu programme ci réew mi gars yi bind ci réseaux sociaux yi ñu tere ko kon lépp lu xew ci réew dañu koy tere. Mm-hmm. parce que réseaux sociaux yi tant que mi ngi exister. Mm-hmm. ak lu mënti xew gars yi dañ ci bind wax li bëgg a mënoo ci dara maintenant est-ce que c'est c'est, c'est du sérieux wala c'est pas du sérieux mënoo ci dara les réseaux sociaux man je pense que c'est pas une raison pour que un gouverneur taxaw ne kenn du def un congrès d'investiture dans une capitale comme Dakar. Mm-hmm. bi mooy le Dakar ba tey Euh, euh, dafa am ay déclaration yoo xam ne yeneen parti def nañ ko ne ñoom aussi dañoo bëgg a def ay rassemblement wala ay manifestation le 15 ak le 16 mais Cheikh su fekkee ne man su ma defee demande ne dama bëgg a def sama manifestation yow soo defee demande ñu interdire ñaar yëpp kon réew mi jaxasoo mhm. ku def demande rek keneen def mhm. ku def rek keneen def mhm. alors qu'est-ce que ça a ku bëgg a def ras euh, euh, euh, soo congrès ci benn stade ak koo xam ne nee na dafa bëgg def manifestation ailleurs à Dakar mais est-ce que le gouverneur man parfois damay mu jàgg ma ne man je me pose une question simple est-ce que parfois nos autorités administratives du ñoom ñoo bëgg di créer ay ay ay problème foo xam ne problème amu fa est-ce que parfois ñoom dañuy wax ne le Pastef fait de la provocation mais est-ce que parfois du ñoom ñoom ñooy def de la provocation. Mm-hmm. parce que Cheikh le fait de dire au aux de Pastef que ni gouverneur interdit na seen congrès d'investiture boobu ñoom ñu ne dañ koy def parce que préparé dañ ko pare def nañ ci seen xaalis def seen investissement et dañ koy def léegi bu seen ay nit ñëwee sonk stade ba euh, alkaati yeeg policiers ak gendarme yi ñëw de du fa amee mais foofu la foo confrontation di amee. Mm-hmm. wala de mm-hmm. or li gënoon a yomb mooy bàyyi la ñu def seen congrès boobu comme ni ko parti Sénégal yëpp di defee. Mm-hmm. stade boobu yàggul dara le pur de Serigne Cheikh de Serigne Moustapha Sy Al Maktoum def na fa un grand rassemblement mm-hmm. Ousmane Sonko mi ma nga fa woon et ce rassemblement là posé wul kenn problème dañ ko def après ku nekk ñibbi alors ce qu'il faut faire euh, euh, ci yu mel ni Aïcha mm-hmm. mooy je crois autorité il faut que ñu garder seen sérénité de def attention man dama dégg le communiqué du gouverneur fekk jamono yëpp may topp li ñuy tuddee ak Guinée Conakry le procès du 28 septembre mm-hmm. te loolu mi ngi xewoon ci ab stade la classe politique en Guinée Conakry à l' bi fa mu Moussa Dadis Camara nekkee ñoom ñoo préparer dañuy def benn manifestation ci biir stade. boo xam ne yow dem nga fa stade. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw militaires yi ne du fi amee. Mm-hmm. ñoom ñu ne dañ koy def. ba ñu demee di ko def ci biir stade ba fa la leen militaire fekk xeex ba commencé ay doomu aadama yu baree baree baree bari ñoo ca faat mooy massacre du 28 septembre moom la ñuy woowee le massacre du 28 jamono ji moom la ñuy àtte mm. te ñu ngi ciy àtte ñëpp muy président ba à l'époque mm. Moussa Dadis Camara ak ay ministre am ak ay généraux ñoom ñëpp mm-hmm. li leer mooy seen giiru dund kaso lañ koy passé mm-hmm. wala boog lépp seen dund kaso lañ koy passé alors booy booy gis lu mel noonu da nga naan Sénégal jar nañu def attention. Mhm. parce que pour man li gën a yomb ci stade stade Cheikh Tidiane xam na dem nañ ci stade àdduna bi yëpp. Mhm. stade moo gën a yomb a encadré. Ah, waaw mhm. ay porte la. il suffit de mettre des policiers pour que ku bëgg a dugg dugg. suñ bëggee dem def seen congrès heure sàngam lay commencé heure sàngam bu jeex ñu dem. beneen bi mooy stade bi quand même. mais est ce que amuñu nekkul <laughs> gouverneur Dakar. mais est ce que amuñu man gis naa le maire de Guédiawaye mu ne moom. joxe na stade ba pare te stade Cheikh Tidiane xam na ma xam na ko stade day am ay directeur mhm. stade yi day am ay directeur boo xam ne le ministère des sports moo koy nommé mhm. est-ce mu kooku mënuñu koon bàyyi mu jël responsabilité su fekkee ne yaakaar naa ne stade tam mënu ko accueillir mu interdire ko mhm. ne sama stade bi mënul accueillir congrès bi ñu dem seeti beneen place Idrissa Seck prévoir oon na fi def benn manifestation je crois euh, ci benn hôtel à Saly ñu dem ba au dernier moment mais waa hôtel bi ñoom ñoo ne ñoom mënuñu ko accueillir ñu bàyyi hôtel boobu dem defee ko beneen man ko man kiiw Idriss Seck boobu fekkee woon naa ko c'était à Saly mhm. noonu la réew di doxee mais le gouverneur il n'a aucun droit naan day interdire un un congrès d'investiture d'un parti politique légalement constitué boo xam ne ba léegi ba fi ñuy waxee nii il est huit heures euh, trente une minutes kenn kenn dissoudre ko mais est-ce que lu ñuy ragal en quelque sorte mais lu ñuy ragal mais est-ce que jàppuñ ne parti bi existé tout d'autant plus que numéro deux Euh, secrétaire général bi Bassirou Diomaye Faye nga kaso. Euh, jiitu parti bi si boppam mu ngi nii ñu nekk ñu ñu ñu barricade. barricade comme ni ko suuf <laughs> barricade est que jàppuñ ne de fait facto parti bi existé tul sax. déedéet non xaa non mais Serigne man defe naa ne. on parle de loi. oui. Mhm. on de personne. voilà nous on parle de loi. Mhm. Euh, déggoo fenn ñu ne dissolution du. Euh, Pastef waa Pastef. Mm-hmm. donc une fois que parti bi <coughs> dissoudre ñu ko. parti boobu am na droit. même bu fa ñaari melentaan doo dégg la ma la am na droit def investiture ah man loolu laa ko jàppee. Ah amul ay euh, nit ki même sax. bu doon ñoom je ne sais pas ñoom ñëpp ñu nga te kaso am na ay militants am nañ ay sympathisants voilà investiture bi ça militants yee ko moom. waaw waaw soo les militants ñooy wu. ñoom ñooy wax. ñoom ñooy kii bon bon ñu bàyyi leen ñoom ñu def comme ni ko Moustapha waxee man man ma boog stade bi ñu encadré ko. oui encadré ko dañuy toog ñoom xam nañ ni ñuy encadré am na fi ay am na fi ay ay ay match yoo xam ne dañ ko annoncé ay match euh, ay match yu kii la. yoo xam ne ay match yu am euh, violence la. am na ay làmb yoo xam ne ñëpp xam nañ ne làmb yi. làmb gën a waaw waaw loolu yëpp mais gars yi encadré nañ ko mais gars yi jéem ko encadré. Euh, bu jeexee ñu ko ñu wax nit ñi bu jeexee voilà yoon bi ngeen di jël. Mhm. léegi allez passer par la nangam gars yi organiser ko mu jeex. Euh, c'est tellement euh, vrai Cheikh li nga nekk di wax ko de parfois même da ngay dégg explication da nga c'est ridicule. Mm. lamb bi nga tudd sànq. lamb parfois mooy ëppi nit parce que sta fan yi lambee muy arène ba day fees dell. Mm-hmm. boole ceeg man li ma lay wax ni Cheikh euh, Serigne kenn waxuma ko sama bët moo may Pikine laa dem. Euh, yëguma ne war làmb dafa am ma jaare ci côté stade bi génn may tollu technopole laa gis bëcc il faisait 18 heures 18 heures 30 mais ay xale yor seen i jaas yi yor seen i paaka di agressé ah, boo gën a dangereux or le congrès d'un parti politique mais mais c'est une fête mm-hmm. c'est une fête c'est des gens yoo xam dañuy daje ñëw exprimer seen joie wax ne diw la ñu investir pour nekk seen mm-hmm. candidat mm-hmm. ñu dem seen yoon man bu tànnoon sax di ko defee ci mbedd mi ma ne gouverneur xëy na am na lu mu ci war a ragal mais ci biir stade looy ragal waaw looy ragal. en sax et bi li ci doy waar mooy le gouverneur day jox raison rek ñi nga xam ne mooy li l' observateur bind keroog quand l' observateur a écrit que ni Macky Sall dafa wax ci benn réunion ne investiture Pastef c' est une provocation. le gouverneur ñëw wax li mu wax te même les arguments que que que euh, qu'avance le gouverneur Dakar mais dama koy lire man dama naan mais ça c' est très politique. Mhm. li muy wax ce n' est pas administratif c' est très politique. parce que sooy su demee ba naan wéy ñi nga xam ne ñoo ci yàq seen alal leur seul tort c'est d'avoir consenti à des investissements importants pour dundal seen njaboot nangam ak nangam tune n'es plus sur le champ de tu es sur le champ politique yaa ngi nekk di joxe argument politique l'essentiel mooy le Pastef comme dit Cheikh ak Aïcha Diakhaté su fekkoon ne ñoom ñëpp ñu ngi prison aussi mu des ñaar ñoo xam dañuy wax ne dañu bëgg def congrès d'investiture seen candidat mais ils ont te li ci doy waar mooy d'ici quelques jours di dégg yeneen parti def seen congrès d'investiture waa léegi ñooñu nag léegi waa léegi ñooñu nag interdire parti yu ko bëgg def sax am na jamono ji ñoo xam ne ñu ngi investir seen bopp mhm. mu mel ni sax euh, défiance la ci biir benn coalition Benno Bokk Yaakaar mhm. voilà euh, loolu defe naa waxoon nañ ko fi dinañ ko fi waxaat Aïcha moo di ne euh, le président Macky Sall dafa def lu mu mën Cheikh Tidiane pour lii di lii mu jëm nii mu éviter ko xam nga bu muy wax nii wii nii noo dafa waxoon ne bis bu waxee ne moom du candidat euh, kenn dootu partem dootuñu liggéey. liggéey moo tax il a poussé l'échéance ko poussé ko ba à huit mois des élections muy doog wax ne du candidat ginnaaw bi nga xamee ne nag. gis na li xew ci réew mi. 2019 euh, lañ ko ko laaj. mu dem ba 3 juillet 2023. muy doog muy doog indi réponse parce que jéem na lu ne. Mhm. pour xool ba xam dina nooy su nooyee mu dem mais dafa xam ne affaire dafa dëgër. Mhm. comme dëgër na nag il il était obligé. 4 ans mu ne nekk candidat contrairement explication yi fi gars yi joxe yëpp gis naa suñu copain Ablaye Sow expliqué lu leer li li leer mooy Macky Sall ku ko bàyyi woon ci teeg bakkanam mu dem nekk candidat. Mhm. mu dem mais li xew ci réew mi yëpp tax na mënu woon a nekk candidat léegi bi mu déclaré candidature am dafa am loo xam ne daf ko daf koo def mooy il a voulu garder la main garder la main mooy wax ne su ngeen ma wóoloo ma tànn leen di ngeen gañe loolu li bëgg mooy ñu bàyyi ko moom mu mu tànn ci teeyaay teeyaayu bakkanam mm-hmm. nga xam ne il reste encore le chef il reste encore le maître du jeu mm-hmm. mais Cheikh boo xoolee liy xew nii depuis quelques jours mm-hmm. nga xam ne gars yi li Cheikh Diallo journaliste nekkoon chef desk politique Soleil. Mhm. un grand monsieur de la presse d'ailleurs li mu bindoon ba Macky Sall falo la ne Macky Sall il va faire un quinquennat de trois ans. quinquennat de trois ans mooy dañ ko fal pour cinq ans mais il ne sera président que pendant trois ans. parce que mm. deux ans yi mujj ci mandaam gars yi dootuñu ko faale dootuñu ko lijjanti. Mhm. dañuy lijjanti élection présidentielle deux mille vingt quatre ak kan moo war a nekk candidat te bis bu ñu xamee kuy nekk candidat dañ fi bàyyi Macky Sall dem topp kooku. parce que gars noonu la def. Mhm. fi seen intérêt wu lii seen lii fi intérêt bi nekk rek fa lañ jëm. Mhm. loolu damaa yaakaar ne Macky Sall daf ko dégg moo tax il tout fait pour ne pas wax ne du nekk candidat jusqu'au bout mais bi mu waxee ne du nekk candidat. mais de euh, d'ailleurs sax de defe naa loolu moo tax fan yi muy def ay nomination yu bëree bëree bëree bëree bëri pour wane ne ba léegi c'est lui chef mais la réalité chef mooy il n'est plus le chef mhm. Macky Sall le chef te te te nee nañ vendredi tey le vendredi peut-être d'ici week-end dinañ wax kan mooy seen candidat mais tu vas voir que Macky Sall n'est plus le chef chef Sénégal gars yi fu buur lañu àndal mhm. ñi sant Ndiaye buur lañu àndal suñ gisee ne buur yoratul yoratul doole ñu bàyyi ko fa ah mais Moustapha est-ce qu'il obligé de ko euh, obligé de de de euh, maanaam mu jël posture boobu. ne euh, comme yoon ni ñu koy décrire. mu jël posture boobu parce que bu ko defee moom parteem. waaw attan na disparaître. oui dégg nga. xam nga yooyu yëpp xam nga yooyu yëpp day am. oui xam nga yow boo yoree kër. nga xam ne léegi nag boo après kër gi dangay ngay bàyyi da ngay dem. waaye waa xale yi dañuy kii sans oublier que grande ko accompagné aussi voilà et puis am ñeneen ñu la jàpp uh-huh. est-ce qu'il n'est pas obligé tey jii uh-huh. mu jël posture boobu wane ne que man maa fi nekk boo leen ma falee man ma kii leen mais c'est pour tenir gars yi tu as posture boobu la Macky Sall jéem a garde garder uh-huh. depuis ñu fal ko en 2019 mooy wax ne du euh, wax ne euh, du nekk du wax ne damay nekk candidat wala du ko nekk. Mhm. parce que moom waxal nag boobam see du nekk su ne day nekk candidat gars yi génn ci mbedd defante ko moom. Mm. su ne day nekk du nekk candidat waa parti am day tas. teg si di jëfinu damay nekk. candidat exactement gën a téye exactement pour gën a téye mm. parti am. Mm-hmm. très bien mm-hmm. mais Cheikh dañoo toll foo xam ne ñu ngi ci cat li. waaw Macky Sall n'a plus le choix. te xam nga keroog bi mu waxee ne d'ailleurs Macky Sall man pour man. mënoon na def leneen moo doon bu déclaré woon depuis 2019 mm. que ni du ma nekk candidat en 2024 parce que damay respecté sama parole commencé préparer quelqu'un boo xam ne moo war a nekk son dauphin moo ko remplacer y aura des y aura des chocs d'ambition dans son mais dina am temps wu gérer ko gérer ko voilà dina am am doole euh, exactement euh, gérer ko doole ak temps wu gérer ko parce que boobaa am na am na fu mën a dégg voilà très mu jéem a xool comment Euh, canaliser euh, galvaniser ba ñëwaat. Mhm. mais fi mu nekk nii il n'a plus le temps. Mhm. on est à 7 8 mois de la présidence il n'a plus le temps semaine bi tey vendredi wala fii ak dimanche dina wax ne moom diw tànn pour partem ak pour waa Bennoo gis nga Cheikh dès que mu annoncé ko nga gis gars yi génn da am ñu génn ne ko d'accord ñu. Mhm. Cheikh tu penses que quelqu'un comme comme comme Amadou Ba. si jamais il n'est pas choisi par Macky tu penses que moom dafay nekk di baataral campagne keneen. ah man de booba ma xam ne nag waa ji moo ñàkk fayda s'il n'est pas choisi par Macky mais le minimum qu'il peut mooy génn nekk candidat. ah oui 2024 bii Cheikh les jeux sont ouverts ku ci nekkul candidat say boo nga bàyyi politique. xanaa ñi gën a féete ndaw nga xam ne ils ont encore le temps mais li Idriss Seck doon seen génération boobu. les mm-hmm. les les les jëm soixante là. Mm-hmm. mais 2024 mooy seen dernière chance ah. comme ni mm-hmm. Macky Sall tey walla semaine bii je ne sais pas quand en tout cas ajjuma la ñu waxoon mais bon on on verra ce que ça va uh-huh. dina wax ne diw mooy candidat et man je veux pas me tromper mais wax naa ko waxati ko man j'ai l'impression que ni ñi ñu yaakaar ñun naan Macky Sall diw lay tànn buñ ñu deful ndànk dinañ am lu ñu bett lool. Uh-huh. gis nga gars yi ñi ngi naan Amadou Ba. Uh-huh. naan Abdoulaye Daouda Diallo. Aly Ngouille Ndiaye naan Aly Ngouille Ndiaye. naan Boun Abdallah Dionne. naan ñeneen ak ñeneen. Amadou Mame Diop. Amadou gis nga waa ay sa mujj tudd xaw ma mooy nekk kan dambir mais ku jar a surveiller te nag te nag pour la petite histoire. yow bi nga ko waxee. après ma dem toog waxtaan ak sama ak ay nit yu xam uh-huh. politique. Uh-huh. mais ñoom nee nañ ma mais c'est quelqu'un boo xam ne ci goxam moom dafa mës a gagné foofu. mësu faa perte. foofu ah, waaw. Cheikh Tidiane waaw moom waaw dafa am base dafa am kii. Cheikh Tidiane yàlla xam na ne <laughs> ku ma miin du ku may fréquenté mais dama xool politique ni muy doxee xool Macky Sall ak ay ses façons de faire. waaw euh, Gabriel Barbier euh, dégg ma ci wax mu ne ma li nga xamul ci Amadou Mame Diop mooy. Mhm. am na ñu bari ñu ne c'est l'idéologue même du de l'APR. Mhm. depuis le début. bari na lu ñu liggéey ci APR ci moom lay jóge mhm. mais du wax du def. te fan yii euh, boo gisee Macky Sall daje yu bari yu muy def waa ji mi ngi toog ci wetam. Mm. am na sax photo bu ma gis démb boo xam ne Macky Sall dafa toog. moom mu toog Amadou Ba doog a ñëw Abdoulaye bu Diallo Abdoulaye Daouda Diallo jàll a ñëw. Hmm. lan moo tax parce que c' est le président de l' assemblée nationale moo tax mu toogee noonu j' en sais rien. Hmm. mais en tout cas c' est une rencontre politique. mooy dauphin constitutionnel. mais c' est une rencontre politique qu'à cela ne tienne yàggatul jëruñuy spéculer. Hmm. mais li ma ragal mooy imaginoon Macky Sall tànn ko est ce que da ngay espérer su ko Macky Sall tànnee ne mooy mooy nekk seen candidat da ngay espérer ñoom Amadou Ba di ko baataral campagne wala ñoo Abdoulaye Daouda Diallo. wala ñoom Aly Ngouille Ndiaye wala wala Cheikh tu espères ça mhm. man je l'espère pas donc moo tax ma ne la man gëm naa ne fan yi ñu jëm c'est des heures fatidiques pour l'APR ak le Benno Bokk Yaakaar. mais la main amul euh, kii. xam nga on sa xam nga Macky arme yëpp. arme yëpp mën nañ ko utiliser. est-ce que est-ce que est-ce que est am. na xaw ma ndax yaa ngi comprendre. xam nga kañ la doon nga kañ la doon mën a forcer la main. waaw attention. non euh, am na dossier. <laughs> xam naa fa nga jëm mooy mooy dossier yi. Mhm. am na ñu mën a génne seen dossier. Mhm. mais xam nga kañ la doon mën a forcer la mes chers. <laughs> Macky Sall amoon deux ans devant lui. mes chers à huit mois. waaw jege na trop. mais mu mu euh, waa d' accord on est à huit mois. oui yow yow Moustapha bon da ngay def li ma euh, kii. Mhm. nga ne non non def moom ci diggante boobu. Ah. mën naa la sacrifier yow. Ah, oui mën naa la liquider. mais mais et Moustapha bu fàttali si deux mois. la Ousmane Sonko affronté ñaari dossier muy bu Mame Mbaye Niang mën naa la liquider c'est des cas différents ah. euh, waaw bon d'accord euh, nga tey dañu toll ci dañu jëm ci la ligne la dernière ligne droite qui nous mène à une élection présidentielle le Sénégal et très surveillé Macky Sall am na yoo xam ne ñeme na ko nag moom parce que Sall moom def na lu ne ah. mais am na yoo xam ne jël risque def ko amul ko benn jëriñ parce que day tas son camp définitivement imaginez woon tey mu ne Amadou Mame Diop mooy kandaa bi Amadou Ba Diouk ne day nekk candidat mu ne noo kii am naa ay dossier ci moom taxal ma yóbbu ko ci yoon bul fàtte ne Ablaye Wade laa essayé ah Ablaye Wade bi Macky Sall di ko défier ne day nekk candidat gars yi dañoo xëy fii convoqué Macky Sall sûreté urbaine Sénégal gépp génn mm-hmm. bul fàtte loolu. après le pouvoir de Wade il paraît sax Wade ci boppam moo demandé à ces gens d' arrêter cette histoire là gars yi arrêté ko. Mhm. mais Wade nag gentleman la. Mhm. est que est ce que gentleman bi nekk si Wade mi ngi si Macky Sall. Mhm. je le pense pas mais en tout cas li ma xam ab Macky euh, euh, Cheikh. mooy diir bi. gàtt na gàtt boo xam ne. <laughs> marge de manœuvre. Mhm. bi Macky am moo bariwul. c' comme rek euh, le football Cheikh Tidiane. Mhm. saa yi nga dajeeg benn équipe boo xam ne tu habitude de l' de jouer dans les espaces. Mhm. ñu réduire les espaces d' telle manière boo xam ne <laughs> pour nga jouer day jafe. <laughs> Cheikh Tidiane euh, euh, Macky un grand joueur mais les espaces moom la réduire. kon kon su ma la déggee baax Moustapha peut être président Macky Sall a de ne des tentatives lii Cheikh di wax dina ko mm-hmm. man sa à dire que dina man di gor di yett di gor di yett ba jusqu'à ce que bul fàtte ne euh, Abdou Diouf soxnaam dafay nettali am Abdou Diouf mi ngi remplacé Senghor en 80. 80 waaw soxna Abdou Diouf dafay euh, dafa nee nañ dafa nettali ne moom en 67 je pense. Mm-hmm. la la dajeeg sengor ci benn cérémonie Senghor ne ko euh, del jàppale sa borom kër bu baax a baax parce que je pense à lui pour me remplacer. ñu denc loolu sox mais nag jigéen day am dafa am jigéen yoo xam ne ah, voilà jigéen da koy mat kooku mhm. kooku dafa mat soxna mhm. mu kooku denc loolu denc ko denc ko denc ko denc ko ba jëkkëram nekk président de la république en quatre-vingt donc un dañ koy dañ koy préparer lu yàgg yàgg. dëgg la c'est vrai Macky n'a pas le temps waaw na la pas loolu mooy li am mhm. il n'a pas le temps de préparer quelqu'un donc marge de manœuvre bi dafa gàtt mais est-ce que nekkul woon doon préparer kenn koo xam ni waxu ko woon. déedéet non non non non non li Moustapha wax laa gëm. mooy que Macky Sall man fii ci fii nag boo gisee euh, tey jii dauphin bi euh, kiwul euh, maanaam defawu ko. mooy que Macky Sall. dafa doon yaakaar présenté wu en deux mille. oui euh, Macky Sall comme dit Cheikh comme comme li ngeen wax yéen sportif sur deux tableaux. su nooyee ma dem su dëgëree ma ma bàyyi. déjà y a une pléthore de de candidats déjà bu fekkee mm-hmm. euh, euh, day gën a bari rek. implosion bi sax déjà dans Benno commencé na. Mm-hmm. parce que kii mi ngi koy wax Jean-Baptiste Diouf bu PS nee na la. sànq ci suba liir naa Abdoulaye Wilane. bu PS mu ne le PS dafa war ab candidat nga yaa ngi fàq fu ne. Mm. donc fàq gi commencé na. <laughs> Ah, te déjà liste dafa bari ñu bokk ci présidentielle. non ñi ngi ci ñi ngi ci quarante une quarantaine de personnes. yoo xam ne nekk nañ nekk nañ 44. yoo xam ne déjà déclaré nañ dañoo bëgg a nekk. candidat lantinor maa ngi fi. oui et man nag am na benn affaire boo xam ne mooy seggu parrainage. waaw waaw waaw solo mais am na ci boo xam ne man. Euh, franchement quand j'ai quand j'ai commencé à voir à voir ça dama ne man ça me fait plaisir xam nga lu tax dafa am. Euh, euh, ma ma maa ngi koy dégg maa ngi koy jeexal rapidement dafa am kii nu mu tudd Mouhamed Moustapha Diagne. Mm-hmm. dafa ñëw fii Pencoo ñu koy laaj profilu ki war a remplacer Macky mm. mu ne en tout cas na nekk koo xam ne Macky Sall la ko mag. ma lire ci journal Le Monde am un responsable APR bu ñu interroger mu ne ñoom profilu candidat bi ñu war a am mooy quelque boo xam dafay nekk génération ñoom Ousmane Sonko. Euh, Barthélemy Diaz c'est les noms qu'il a cités. Mm-hmm. parce qu'ils veulent quelqu'un boo xam ne dina mën a wax ak la jeunesse. ma gis benn affaire Cheikh Tidiane ki ki kii quand même euh, au sein de Benno mérite réflexion dama gis ku mel ne Mame Boye Diao c'est cette génération la un mhm. peu mu ne moom dafa bëgg a nekk day dafa bëgg a nekk candidat muy jantal jantalu jantal jantalu ma gis <laughs> Nafissatou Diouf mhm. Nafi que je connais très bien parce que <laughs> on a été dans la école <laughs> mu ne moom candidate la à la man pour man ces initiatives là man pour man dafa am solo parce que dañ ci toll quand même ils ont le droit de le mm-hmm. faire. Mm-hmm. gis nga bu ma gisee euh, Cheikh wax na ko fii keroog. Mm-hmm. Euh, je pensais que c' était pas truc. mooy Moustapha Diop le maire de la ville de Louga Cheikh Yane ko wax. ma jógee fii j'ai demandé. parce que nag xam naa ko xam naa ay mbokkam j'ai demandé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko jege ñu ne ma du ay caaxaan effectivement. il va être pour man cette génération là au sein de de l'APR daf ci waroon am ñu baree bare ñu génn ne dañoo bëgg a nekk candidat. Mm. parce que ñooñu ñooy moroomi. ñu nar a yore réew mi ëllëg muy ay Déthié Fall ay Ousmane Sonko ay euh, je sais pas ay ñu mel noonu ñooñu ñooy ñooy ñi nar a yore réew mi ëllëg mm. te c'est une tendance dans beaucoup de pays d'Afrique maintenant mm. ils ont des présidents relativement jeunes mm. donc donc qu'au sein de Benno que ces personnalités là commencé di wax na ne dañoo bëgg a nekk candidat mais pour man c'est une bonne chose. mais Moussa Fall yaa ngi ciy génne Karim te moom aussi. Karim bien sûr Karim Wade qui va qui qui qui qui sera certainement candidat. Mm. pour pour man c'est une excellente chose. et le le le Mame les deux là Mame Boye Diao ak Moustapha Diop bul fàttali ne ils sont maires. Mm-hmm. et quand on est maire on a une légitimité. Mhm. Moustapha Diop moom moo daaneel le parti socialiste à Louga. te Louga est une ville socialiste. boo xam ne depuis toujours les socialistes ñoo koy gagné. Mhm. bi muy gagné Aminata Mbengue Ndiaye les gens pensaient que mënta nekk te depuis que mu gagné Aminata Mbengue Ndiaye ba léegi moom moo fay maire donc man pour man il a. il a très épaulé par les femmes. mais mais très épaulé par les femmes parce que bi mu jiitee bi mu jiitee la microfinance. Mhm. a responsable politique la maire de Kolda ces gens la man pour man ils ont le droit de se lever de diir que ils veulent être candidat man mieux je dis même que su su leen Macky Sall tànnul nañ dem nekk candidat tànnal seen bopp <laughs> Moustapha bëggoon nañu vraiment euh, euh, ah dégg la si si de la famille libérale bu ñuy wax entre guillemets mais bon on aura l'occasion ma wax ko ci une minute rek waaw yàgg na ma ko penda may rek Cheikh Yane mi jël si temps tuuti wax xam nga li tax ma euh, dañ ko abordé keroog ci live bi ñuy def les mardis la question Aïcha moo doon que Idrissa Seck ak Karim Wade mën nañoo dajee waat mm. la famille euh, euh, libérale kenn ci ñoom nekk candidat kenn ak soutenir ma ne ko yaakaaruma ko d'ailleurs dégg naa maam Birame mu ne mag Sall ka muy soutenir ci famille boobu lay jóge mais pas dans la paix mais qu'à cela xam nga lu tax yaakaaruma ko Aïcha mhm. gis nga euh, dafa am diggante yoo xam ne day toll foo xam ne pour nga defaraat ko dafay jafe ça dépasse largement le terrain politique bi soxna Karim Wade faatoo muy Karim Wade la tudd mhm. bi mu faatoo Idriss Seck da ko bëgg a dem jàll ji Karim Wade dafa lànkoon il les gens ont tout fait jusqu'à ce que Karim Wade accepté il paraît que moom wadd moo ci dugal loxoom Karim Wade accepté Idriss Seck ñëw seen kër point e pour jàll si ko. Mhm. gis nga bi Idriss Seck ñëwee El Hadj Mansour mbay moo yoroon cadre gi jour boobu El Hadj Mansour Mbaye moo annoncé ne idée gi nii dafa ñëw indi njaalam nangam ak ndaam Idriss Seck Mansour Mbaye a tout fait pour Idriss Seck jël parole la famille Wade lànk Idriss Seck jël fu parole gis nga. Euh, bi ñu demee ba août 2011 ci la Idriss Seck de benn entretien ak benn journal bu tudd Weekend Magazine ku ko moomoon Weekend Magazine Madiambal Diagne ko moomoon ci Weekend Magazine exactement ci Weekend Magazine euh, ci la Idriss Seck waxee woon ne Karim Wade moo ne ko Karim Wade moo ne Idriss Seck devant la mort tout se pardonne mais je ne te pardonnerai jamais ce que ak as Idrissa Seck moo ko nekk li ne Karim moo ko wax ne ko su dee amee lépp la ñuy baale mais yow Idrissa Seck duma la baal mukk li nga def Karim Karim mooy soxnaam si faatu eh, eh. lan la Idrissa Seck def Karim ba Karim Wade wax ko loolu ba nangootul bëggul sax mu ñëw jaale ko ça c'est un problème boo xam ne ba léegi leeraluñ ko qu'est-ce qui s'est passé kenn leerlu ko Idrissa Seck wax ne c'est parce que Idrissa Seck ne moom dafa jàpp ne Karim Wade dafa il a besoin d'explication pour pouvoir regarder pour pouvoir se regarder dans la glace face à tout ce qu'il a fait pour détruire ma relation avec son père Idriss Seck tontu Karim Wade ne Karim dafa soxla ñu wax ko dëkk pour mën a jàkkaarloog boppam ci seetu pour xam ce qu'il moom Karim li mu def yëpp pour tas digganteem ak Ablaye Wade papaam Cheikh Tidiane relation bu demee ba tollu foofu. Mhm. entre ñaar ñooñu man ku ne ma mën nañoo àndeet dama naan la politique lépp mën a ak wax yi ñaaw yi nga xam ne Idrissa Seck teg na ko ci ndox bi. ma kay mais euh, euh, Idrissa Seck moo taxaw fii ne Ablaye Wade ah, <laughs> ma waxee ñu naan arxuraan noonu la noonu day wax yu mel noonu mais leen arxuraan d'accord mais. Ablaye euh, Ablaye Wade quand même. Mhm. quand même ak fi ñu jaar ñoom ñaar. donc moo tax ma ne la diggante boobu suñ naan ma